أحمد اللمين بن خديم خير الأنام أحمد الحادي الكريم يقول أحمد اللمين بن خديم خير الأنام أحمد الحادي الكريم يقول أحمد اللمين بن خديم خير الأنام أحمد الحادي الكريم حمدا لربي الآل رحمن من جاح بالإسلام والإيمان ثم صلاة على الأدنان من فضله في المرسلين ثبتا وبكتاب العزيز قد عتا والي آل تقى وصحبي وكل من قد جاح مؤمنا بحي asa wa inni al yawma su tawassuli bi suwari al qur'ani waxwa munfili samaytu munawwir al bunyaani معلم الجعال والأميان سميته منور البنيان معلم الجهال والأميان ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi sant yàlla tey julli ci yonante bi alayhi salaatu wa salaam. ñu ngi sant yàlla tey julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. tey gërëm ku tedd ki. di yëkkati suñu kàddu. di yëkkati sunu kàddu ci ndigal ak tur sa jëwriñ ci ndigal ak tur sa jëwriñ sëriñ Moustapha mi nga xam ni sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo la nekkal sa njabootuk bopp gi moo la nekkal fa sa njabootuk bopp ga njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara njabootu Cheikh Mouhamadou lemin Baara ni ñu ko baaxoo defee at mu nekk ni ko baaxoo defee at mu ne nga xam ne jiitu na ca suñuy waajur nga xam ne jiitu na ca suñuy waajur la woon bis bi saa su ma saa ñëw. bis bi saa bu ma ñëw. waa kër gépp ànd ñëw ci yow. waa kër gépp ànd ñëw fi yow. wala ku fi mas a nekkal Cheikh Moustapha. wala ku fi mas a nekkal Cheikh Moustapha. tey jii itam boppi kër yëpp yi fa ëpp. tey jii itam mën na ne boppi kër gi yëpp. ñoom ñëpp kenn ku nekk ñëw na. ñoom ñëpp kenn ku nekk ñëw na. kër gu nekk ka ko jiite. kër gu nekk ka ko jiite. mbaa ku ca am ngànt itam. mbaa ku ca am ngànt itam. xool nga say rek nga yabal leen. xool nga say rak nga yebal leen. sëñ Modou Ablaye ngi nii. sëñ Modou Ablaye ngi nii. sëñ Lamine moom sëñ Basirou teewal fi sëñ Lamine moom Basirou Khoudia. sëñ Modou Baara ngi nii. sëñ Modou Baara ngi nii. di xalifab sëriñ Abdoulahad Baara. di xalifab sëriñ Abdoulahad Baara. ànd sëñ Lahat Baara. ànd ak sëñ Lahat Baara. sëñ Baara Lahat. sëriñ Baara Lahat. ak rakkam. ak i a ngi nii. di xalifab sëñ Ahmed Baara. di xalifab sëñ Ahmed Baara. sëriñ Xaadim Mustahin a ngi nii. sëriñ Xaadim Mustahin a ngi nii. di xalifab sëriñ eh, Mustahin Baara. di xalifab sëriñ Mustahin Baara. sëriñ eh, Abdou sëriñ sëñ Baara Abdou Karim a ngi nii. sëriñ Baara Abdou Karim mi ngi nii. di xalifab sëriñ Abdou Karim Baara. di xalifab sëriñ Abdou Karim Baara. sëriñ Moodu Baara. sëriñ Moodu Baara. mu sëriñ Abdou Khadim. mu sëriñ Abdou Khadim. ànd ak i rakkam ñoom ñëpp. ànd ak i rakkam ñoom ñëpp. Cheikh Coro. sëriñ Cheikh Coro. mu sëñ euh, Amar Fall Mbacke. mu sëriñ Amar Fall Mbacke. moom it ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp. moom it ànd ak ay rakam yëpp. sëriñ ñu ñëw fekk fi. ñu ñëw fekk fi. sëriñ Cheikh Mbacke. sëriñ Cheikh Mbacke. mu sëriñ Abdou Aziz Baara. mu sëriñ Abdou Aziz Baara. mu ànd ak sëriñ Bassirou Mbacke. mu ànd ak sëriñ Bassirou Mbacke. ñëw teewal sëriñ Abdou Karim. ñëw teewal fi sëriñ Abdou Karim. mi nga xam ne mooy xalifa bu sëriñ Abdou Aziz Baara. mi nga xam ne mooy xalifa bu sëriñ Abdou Aziz Baara. Eh, ànd nañu itam. ànd nañu itam. sëñ làmp Diop. ak sëriñ làmp Diop. mu ñëw teewal fi sëñ Moustapha Diop. mu ñëw teewal fi sëñ Moustapha Diop. mu xalifa sëñ ñaan Diop. muy xalifa sëñ ñaan Diop. sëñ Xaadim mu ngi fi mu sëñ Cheikh Sidi Mokhtar. muy sëñ Xaadim mu sëñ Sidi mu ngi fi moom it. ak sëñ Moudou Aïcha. ak sëñ Moudou Aïcha. sëñ Abdou Samad. ak sëñ Abdou Samad. sëñ Abdou Khadim moom sëñ Basirou Khoudia. ak sëriñ Cheikh Gaye. ak sëriñ Cheikh gay ak ñi ci ànd ak sëriñ Cheikh Ndiaye. ak sëriñ Cheikh Ndiaye. ak ñi ci ànd yëpp macha allah ak ñi ci ànd yëpp tabarakallah. Baye Ahmadou ñu ngi ñëw. kon Baye Ahmadou Mokhtar nee na ñu ngi ñëw. ci sa wet. fi sawet wet. di feddali li nga xam ni. di feddali li nga xam ne. moo amoon ci diggante ñaar ñu sell ña. moom la yàlla dogal ci diggante ñaar ñu sell ñooñee. muy Cheikh Mouhamadou muy Cheikh Moustapha. ak Cheikh Mouhamadou Lamine. ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. kenn ku nekk xam ni. kenn ku nekk xam ne. suñu borom moo barkeel. suñu borom moo barkeel fa tabarakallah. am na loo xam ne day diis ci jenn jëmm. nee na am na loo xam ne day diis ci jenn jëmm. moo tax yàlla def ñaari jëmm rek. waaye moo tax yàlla def leen ñaari jëmm. kenn ku nekk am yanu. kenn ku nekk am yanu. waaye du ñu ñaar. waaye du ñu ñaari jëmm. kenn lañu kenn lañu woon. mu rafetoon lool nag. mu rafetoon lool it. tàmbalee ci sëñ Modou Baara. tàmbalee ca sëñ Modou Baara. ak Cheikh suñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. ak sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. muy dox ba agsi ci yow. muy dox ba agsi ci yow. dañu des la ci waajur. yow rek lan dese ci way jur ci ñaari kër yi. ci ñaari kër yi. nga rafetaloon ko lool. nga rafetaloon lool. diggante ak sa digganteeg Cheikh Sidi Mokhtar. sa digganteeg Cheikh Sidi Mokhtar. jox ko sa kilifteef. jox ko sa kilifteef. jox ko taalibe gi. jox ko taalibe gi ak sa lépp. te dara desu ci woon. dara desu ci woon. nga rafetal ko lool. nga rafetal ko lool. mu bàyyi koo fi. mu bàyyi koo fi dellu ca ngërëmal boromam. li la war ci njaboot gi. li la war ci njaboot gi. nga taxawee ko. nga taxawee ko. matal ko. matal ko. ba mat sëkk. ba mat sëkk macha allah moo tax tey Cheikh Moustapha Maty Leye ànd ak njaboot gi ànd ak njaboot gi ak taalibe yi ak taalibe yi ak ñëpp ak ñëpp di fabaat lépp di fabaat lépp di ko yeesal di ko yeesal di ko feddali di ko feddali di ko teg sa loxo di la ko jébbal de ko te sa loxo di sant yàlla bu baax ci yow itam sant it yàlla bu baax ci yow ndax li ñuy wut ci kilifa yëpp ndax li wut ci kilifa yëpp mi ngi ci yow mu ngi ci yow ñu ñaan yàlla suñu borom mu ngi ñaan yàlla suñu boroom mu yàggal la fi mu yàggal la fi may la ak wér may la ak wér ba lépp mat ba lépp mat barke Cheikhul Khadim barke Cheikhul Khadim ñu ànd ko borom bis bi te ñu ànd ko moom nag fa mu nekk moom nag fa mu ne ma nga fa toog ma nga fa toog toogal la ci biir njaboot ga. toogal la fa njaboot ga. di la xoolal. di la xoolal. di la sàmmal. di la sàmmal. tey déglu sa ndigal tey déglu sa ndigal. moo njaboot gi yëpp. macha allah moo ne moo njaboot gi yëpp. nekkuñ ci leneen. nekkuñ ci leneen. lu dul loolu. lu dul loolu rek. fas yéene ndono li nga xam ne. fas yéene. ndono lii nga xam ndono lii nga xam ne. dafa tege ci loxoom tey. dafa tege ci loxoom. mu fas ko yéene ko sàmm. mu fas ko yéene sàmm. fas ko yéene ko dundal. fas ko yéene dundal. ba dara du ci manqué. ba dara du ci manqué macha allah. rek. ngir bëgg a fay bor rek. na nga taxawoon ci sa suñu. ba nga taxawoon ci sa mag yu baax ya. sa mag ju baax ya. muy sant itam nag. muy sant it. njaboot gi. njaboot gi. ci sa kanam. ci sa kanam. tey sàkku. tey sàkku. nga ñaanal leen. nga ñaanal leen. ñoom ñëpp. ndax lépp lu mu bëgg ci ñoom. ndax lépp lu mu bëgg ci ñoom. mbaa mu santaane ko. mbaa mu santaane ko. mbaa mu woote ko. mbaa mu woote ko. fu ci waay nekk. fu ci waay man di ne. lu mu sori sori. lu mu sori sori. lu mu nekk nekk ci ittee. lu mu nekk nekk ci ittee. dana ko bàyyi. dana ko bàyyi. ñëw ñëw. ànd ak moom ca ànd ak moom ca loola. loolu rek mooy li am solo. nee na loolu rek mooy li am solo. ndax leneen nekku fi. ndax leneen niwu fi. lu dul lii rek. ñoom na xam nañ ko. ñoom nag xam nañ ko. ñu ngi koy dundal. ñu ngi koy dundal. kon mu ngi sàkk nga kon mi ngi sàkk ci yow nag nga ñaanal leen. ñaanal gi. ñaanal ko ñaanal njaboot yëpp ndax euh, kuñ ne yaay jëmi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. ndax kuñ ne yooyu jëmi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. jëwriñam jëwriñam. du lu oyof. du lu woyof. diis na diis na. waaye nag waaye nag. ku ngeen yan. ku ngeen yan yéen. da ngeen ko téeñal da ngeen ko téeñal. ñuy sàkku rek. ñuy sàkku rek. nga gën koo ñaanal nga gën koo ñaanal. ndax moom kilifa mu yàgg fi loolu téwér ndax moom kilifa la goo xam ne. bu neex a àndal la. a àndal la. saa su xëyee. saa su xëyee. jamono bu nekk. jamono bu ne. mi ngi wàcce boppam. mu ngi wàcce boppam. mi ngi waxtaan. mi ngi waxtaan. mi ngi diisoo. mi ngi diisoo. mi ngi laaj ay xalaat mi ngi laaj ay xalaat. te loolu su ko neexoon du ko ci fekk. te loolu bu ko sooboon du ko ci fekk. léeg muy wax sax. léeg-léeg mu wax sax. naan seen borom dem na. naan dem na. ñi fi des ñoo ko bokk. ñi fi ne ñoo ko bokk. loolu ak mbaax rek la loolu ak mbaax rek la. waaye kilifteef waaye kilifteef moom. kenn du ko bokk kenn du ko bokk moo ko moom. waaw moo ko moom boppam. lépp nag sa loxo la nekk lépp it mi ngi sa loxo yow. kon nag ñu ngi fàttaliwaat lépp tey tey jéggalu tey jéggaluwaat tey ziar ci bis bu sell tey ziar ci bis bu tedd bii nag muy bis boo xam ne kenn ku nekk xam na ni mu toll mooy bis bi gën ci bis sëñ Tuubaa yi gënal sëñ Tuubaa ci bisam tam bind ko tam bind ko wax ko wax ko ñaan ko suñu boroom muy bis bi mu ñu bis bi mu ñu bisee nag ci boroomam ñu sant ci yàlla bu baax ñu sant ci yàlla bu ñaan ci yàlla itam ñaan ci yàlla bu baax lépp loo xam ne lépp loo xam ne lu ñuy ragal la suñu boroom dàqal na ko ci dara borom bis bi ñu ngi siyaar itam ñu ngi siyaar it Moustapha gi yëpp njabootu gi si gannaaw yëpp gi ci yëpp suñu xasee ñëw ci yow buñ xasee yegg si ci yow wax rek wax ak rek wax na ñoom ñëpp mel na gis nañ ñëpp wax na ñoom ñëpp ñoo ngi jéggalu itam nag ñu ngi jéggalu it nag ndax sëñ Moustapha dafay sa kanam su ñëwee ba ci sa kanam amatuñ fi kàddu amatuñ fi kàddu war ñoo yëkkati war ñu yëkkati kàddu dañoo war a ñëw rek dañoo war a ñëw rek déglu ndigal déglu ndigal nga digal ñu nga digal ñu ñu jëfe ko ñu dem jëfe ji nga ñaanal ñu ñu ne amiin Cheikh Moustapha ci turu sëriñ bi. Cheikh Moustapha Matilé ci turu sëñ Ahmadul Muxtaar mii. ñu ngi lay nuyu. sëñ Ousmane Mbacke nee na ñu ngi lay nuyu. di nuyu bokk yi nga àndal yëpp. di nuyu yi nga àndal fas yéene jottali canti sëriñ bi rek. di fas yéene jottali canti sëriñ bi rek. di jégalu it ci lu jiitu. di jégalu it ci lu jiitu. bu fekkee wàññi nañ ci benn araf wala benn wala ñu yokk fekkee yóbbante bi wàññi nañ ci benn araf wala ñu nu ngi koy jéggulu di xamal sëriñ bi ak bokk yëpp di xamal di la xamal yaak bokk yëpp. ak bokki taalibe yëpp. ak bokki taalibe yëpp. ne sëriñ bi bég na ci yéen lool. ne sëriñ bi bég na ci yéen lool. macha mu ànd ak cant yàlla sunu borom. mbégte mu ànd ak cant yàlla sunu boroom euh, jaar ci sëriñ bu mag bi nga xam ne moo waral lépp. jaar ci sëriñ bu mag bi Seyxuna al Xadim mi nga xam ne lii lépp moo ma. ak ay waajuram. ak kilifa yi yi mu wuutu yëpp. ak kilifa yi mu wuutu ci jotaay bi. boole cant yooyu yëpp nag. mu ngi boole cant yooyu yëpp. di ko ko sant di ko sant njaboot gi. di la ko sant di ko sant njaboot gi. ndax seen teewaay bii tey. ndax seen teewaay bii tey. njëkkul tey. njëkkul tey. yàgg naa am lool. bi mu ñëwee ci say loxo. bi mu yegsee ci say loxo yit nga ànd koog say bokk. nga ànd koog bokk yépp. dafa yokk waaye dara wàññi ci. gis nañ ne dafay yokk waaye dara wàññi ko loolu it li ko waral mooy mbir sëñ bi mooy lii. loolu it li ko waral mooy mbirum sëñ bee mel noonu day yokk rek. waaye nag li mat a li tax ñi jiitu mata sant. li tax nag ñi jiitu mat a sant it nag. gannaaw bi yàlla dogalee gannaaw bi suñu borom dogalee lii jaarale ko ci ñoom. ñu xam nangu nangu dogal bi yàlla. ñu xam nangu dogal bi yàlla. di ko dundal di ko dundal. lépp di ay ay yiw ak i njariñ. lépp di ay yiw ak i njariñ. nu xam ko. nu xam ko. tàggat nu ci. ñoom. ba tey jii ngeen doxee ba tey ñu di ko doxalee nii tey. mu mu mu yokk nam daan dem. rafetaay wa di gën a yokk rek. loolu sant sant ñeel na nu war nee na cant moo ci war bu baax ñu sant leen ko sant ko yàlla bu baax a baax. yéen nag. nee na yéen nag. sëriñ bi nee na li leen war lépp yéen a ci. sëriñ bi nee na li leen war lépp yéen a ngi ci. ci diggante ak moom ci rafetal ak topp ak lépp lu rafet. loolu moo nee na loola kon sant doom nga fi des moo ci war. donte def lu la war war na ko ne. donte def lu la war sax war na ko ne. waaye nag seere ci kanamu àdduna. waaye nag seere ci kanam àdduna. rawatina ci yoonu mur. rawatina ci kanam yoonu mur yëpp. waaye ci eh, bokk gi ñu waaye rawatina ci bokk gi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba. ne eh, la fi doon démb rek moo fi tey. ne la doonoon ci diggante ñaari kër yi démb moo fi nekkaat tey jii rek. loola lu mat a béral la. kon nag euh, xam mun koo waxee na ko waxee woon. nee na wóor na ko ne yóbbante ni mu ko waxee moom munu ko naa waxee noona. waaye na ngeen xam ne cant gu gu mu tibbee ci xolam gu dëggu ci. waaye na ngeen seere ne cant gu kawe gu mat gu mu tibbee ci xolom moom la euh, seere jëme ci moom la seere jëme ko ci yéen waa Kër Cheikh moom la ñu baara. ndax ñi ngeen ñëwee. nii. sëñ jëmmi sëñ Baara rek la. jëmmi sëñ baar rek moo teew fii ci kanam seex mu al Karim. ñooñu ñëpp sëñ Moustapha rek na ci. te nee na sëñ Moustapha rek sax bu ñëwoon woon mooy ñëpp mooy ñëpp. te na ngeen nekkee ak moom it ump ko. nee na noonu nii sëñ Cheikh waxe léegi ngeen nekkee ni ak moom topp ni ci gannaawam dara ump ko ci. waaye ni ngeen àndandoo ak moom ñëw fii. ni ngeen àndandoo ak moom it ñëw fii topp ci gannaawam ñëw fii. sépp xam ni loolu day seereel àdduna jëpp rek ne li ci biir mooy li ci biti ñaan rek moo ci topp. kon ñaan dong moo ci topp. yàlla musal ñu ci seytaane. suñu borom dollee musal njaboot gi ci seytaane ak cet. te lépp loo xam ne mooy tax lii gën a dëgër. te lépp loo xam ne mooy tax ànd bii gën a dëgër. gën a euh, bari njariñ ci ci askan wi. gën a bari njariñ ci askan wi. yàlla defal leen ko ci. suñu borom defal leen ko ci. it fay leen ci yiw yu kawe suñu njort. yàlla suñu borom it fay leen ci yiw yu kawe njort. jotaay bi it yàlla yàgg am lool jotaay allah te gën a dolli kuy ndam fees ko dell it macha allah. Ah, moom nag mi ngi leen di ñaanal. nee na mi ngi leen di ñaan Cheikh Ahmadou Mokhtar nee na mi ngi leen di ñaanal de. mu mel ne Cheikh Moustapha mooy te it na ngeen seere ne buy ñaan day mel Cheikh Moustapha mooy ñaan. waaye nu it nu ngi sàkk ñaan ñaan. jógee nag ci seex moom leen baara jëm si ci moom mii Cheikh Moustapha. ndax it nee na loola luñ yaakaar lu yàlla luñ sapp la. nee na noonu yi lañ koy gis kon yéen yéen ñu sàkku seen ñaan bu baax ci jëmmam ji mu yàgg fi lool te wér te yàlla dolli li koy sutura dolli ko ndam ci toolu sëñ Touba bi toolu Cheikh Moustapha bi toolu Cheikh Mouhamadou Bara bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah xaala Cheikh Mamadou Lamine Bara ya rabbana inal wara tadarrahu li awliyaika maan li yasun إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا لطفا وأمنا يا آت يا من تعالى لم يكن كفءا عاد للمصطفى نويت ما يجدد سنته قرى وإني أحمد للمصطفى وجهت مالي خادا نفعا بلا مقدرة فانخادا للمصطفى وجهت ما قد سرفا لخيرنا إبليس وحوا صرفا